ñun la Ahmed Saloum Boye encadré Ahmed Saloum Boye ak ñoom Djiboka mi ngi bokkoon ci encadrement jeunesse socialiste suñu ànd bi weesu na léegi trente cinq ans bi ñu nekkee léegi Ahmed nekk suñu mag nekk suñu njiit nekk suñuy xarit Malick gàkku mii di wax li mu wax mën nañ ko seede dëgg la parce que ñoo bokkoon jeune socialiste ak PS ah Ousmane Ka nag fidélité am ci Ahmed Saloum booy du rek mbokk ak deret mais gëmoon li Ahmed représenté woon pour ku nekk ci ñun ci kuy def politique mooy nit ku xam li mu doon xam li mu fi mu bokk mais surtout am loo gëm di def rek nag te yàlla tax di def ak li nga gëm moo tax su ko yàlla wàccalee liggéey mu mënuñu lu dul suñu taxawee fii ñu rendre ko hommage mais surtout gërëm ko sant ko ngir li mu def ci ku nekk ci ñun doyen Aziz Badiane nga ne jóg mi ngi nii toog xam na li may wax parce que seede na diggante bi moo tax li ñuy wax rekk mooy ñaanal suñu mag ñaanal suñu kilifa ñaan yàlla xare ko àjjana te yàlla fexe ba la mu fekk fële tax ba mu rëccu li mu defoon fii